la yéene. mais loolu loolu jarul wuti autorisation. kaay la ñuy waxtaan. ci lu jëmale réew mi kanam. waaw rawatina yow defoo ko centre ville defoo ko buntu présidence de la république gée dimbali nit ñi moom même buntu palais boo ko fa organisé woon sax kay fanaan ca biir palais ba dala ko war a autorisé. mu jaral dimbali nit ñi. mu jaral la nga fay. ah oo nit ñi. loolu tamit non loolu non loolu moom loolu moom boo bëggee dégg dëgg moom. ah dama fa waa gëm sa bopp yi dañoo dese am fit génn ca mbedd maag romb bunt police ba ak bunt yooyu moom waaw moom hmm. jël sax dina ku koy filmer dana yomb ci moom <laughs> sinon bu defee plan large rek <laughs> ba vide ba vide bu flotté du baax de du baax de. waaw yàlla baax na. baax na waaw te nga fa. naka kii madame la maire. madame la maire nga fa. yaay booy Ngone. ajaratu Ngone Ndoye. ana kii monsieur le maire. monsieur maire nga fa. waaw mais man est-ce que xam ko gis. mosu leen gisee. daaw dañu ah bon. man de daaw dañaa dee dégg laay comme comme Jibril Waar mi ma doon jël keroog seen jotaay. Ah. keroog de laa koy doog a. da yaakaar naa ko de. ah loolu du yoon nag. daaw dañaa dey. loolu nag du yoon nag. monsieur le maire loolu du yoon nag. loolu nag du yoon. daaw dañaa. fa fa faw ñu gisee. daaw dañaa. faw ñu gisee waaw. daaw dañaa ba ñu demee D-Média Dama demoon nañ fa. ah demoon ngeen fa. mais yéen a ma jiitu est-ce que jot ngeen gisee foofu. non non non man gisuma ko de. parce que après da ngeen teel a kiiwaat. déedéet man gisuma ko de. gisante ah? wu jot leen gisante non non gisante wu ko de. non loolu jeex na. gisuma ko de. dinañ fa dem. gisuma ko de lu leer laa wax fa ñu gis maire ñaari ay maire nag bu ñuy bokk di liggéey faw ñu gis. li ma daal maa sam père bay di sëy. mosu ñu gisee loolu du yoon loolu ñu gisee. du yoon il faut ñu la bokk njaareem li maamu laay. mu yóbbu la ci bay di sëy. Moon Njaay. waaw Moodu Njaay. ah Moodu Njaay. waaw ñu naan ko Moodu kan. waaw ah, Njaay. ah kon baax na. couleur sociale foofu ba léegi meer bi Aïda Diawara. waaw ah, ah, xanaa déggoo li mu ñu wax. moom budget bi lay xaar ba léegi. budget bi lay xaar ñu jox ko ko ñin. foofu du baax. ah ñun am ñu 15 d'avance. moo tax ah, que maire Aïda Saoud. moom am ñun amuñu 15 ñu amoon maa ngi xool ban maire laa ko war <laughs> moom bu dee trop tard que du ma dem sax. daaw de sama kenn sa dalu la. léegi ca ba toog hôtel yu baax. invité bi waa day caaxaan. yàlla baax na. Ah. ñoo ngi nii toog. acca maam yàlla baax na ay caaxaan. acca acca temps yi temps des journaux yi dañoo bëri. waaw ah, dañoo teglante temps yi. terminé yéen a kaay Moussa ñëw ak ci. ay lu mu wax. rendez-vous bu la yaa ngi. bu la c'est-à-dire. candidat yi nga xam ne mosu ñoo dem présidentiel. ah naxa naxa yi li ñuy wax naxa naxa. na xaar. na xaar. ne ca kaw. ndeysaan Khalifa Sall ah. Abdoul Mbaye uh-huh. Aïssata Tall Sall ci liste bi Malick Gakou ñoom it Agibou Soumaré ci liste bi euh, Cheikh Alassane Sène ñu ngi ci biir juge Dème ci bële yi Ngunda Fall Kane moom ci bële yi Ablaye Baldé ci Issa Sall ci bële yi Boubacar Camara ci bële yi Mamour Cissé <laughs> ñi ñëpp ay bële lañ ah waaw <laughs> dégg nga loolu ah uh-huh. mais APR ci diwaanu Pikine problème am na fa hmm. ah. parce que ah maire jàmm gën Sicap Mbao moo ko wax. mu ne. Ndofène Fall nee na parti bi doxul ci Pikine. Ndofène Fall loolu la wax. waaw. APR doxul non dafa doxul ci Pikine sax Pikine sax moom. Hmm. naka jekk sax ñoom xam nañu ne doxul ci. turu parti bi rek ma fa ne. turu parti baa fa ne. amul benn activité parce que ñi war a doxal parti bi ci Pikine ñoo wane seenu tële. ci ay. mun na Fall ma wax loolu. waaw déedéet. Ndofène Ndofène dama juum <laughs> ah Ndo Ndofène nag bee boo ngeen gestu ko de balaa nag <laughs> béy di way buus. Ah! ma ne balaa béy di way buus lii ko jéem a xeex nee na. Mhm. Macky mënul muusa mu tër bi bay gañe constitutionnel day président dina ko laalaat de. conseil constitutionnel bi lu leer laa la wax. parce que vice président bi Malick Diop. ay. ko booy xàcc nañ. xàcc nañu mais moom nit mu. fii la fii la madame la maire nekk wala fan. bi Lalla Aïssa la nekk non non au conseil. collectivité ah. ce que demul bu OTD waa temps yii daf may nekk fi. <laughs> daa mel ni daa noosi. temps yii dañuy eh, dafa liggéey. oh oh. moom liggéey. waaw ba nekk fi di jàppale waa affaire rek. Lalla dafa liggéey noos nekk ci réew mi <laughs> liggéeyuñu. dégg ci conseil économique social et environnemental. Mm-hmm. Mandaaw. aminta ñëpp xam nañ ne jeex na. jeex na président da koy renouveler waa wala déet en tout cas jigéen ñi bokk biir Benno Bokk Yaakaar nee na ñu Marème Badiane lañ bëgg. ñu fekk fa fa ah Marème Badiane nag kon liggéey na nag ñun ñu moom la ñu tànn. moom lañ mais nu Mimi Touré xam naa ne moom moo ni comme que président Macky Sall la jox te moom la yàlla cërale muy falaka folli. nañ ko bàyyi. kàddu mujj gi mu fal ko neex. loolu tam xalaat la. waxtaanee leen ko seen biir. nañ ko waxtaan. acteur culturel yi nekk ca diwaanu Géejawaay song nañ maire ba. Hmm. Aliou Sall. malversation. détournement d'objectif. Hmm. génnee xaalis ba jaarale ko fu nekkul yoon dañ koy porter plainte of nag. ñoom artistes yi. Pape Maysa Gueye leen jiite kay. <laughs> seen baat ni poto. dañ koy boof nag maa la wax lii ñoo ngi xaar. dégg nga loolu. Hmm. wàllum politique ba léegi ne leen Moussa Maire. Pape Samba Mboup. Souleymane Ndéné. Serigne Mbacké Ndiaye. Modou Diagne Fada journal bi nee na def na lu ñaaw. ñoom ñooñu waaw. Abdoulaye Wade mi nga xam ne suñ neexee ñu ne moo leen fabriqué. Mm-hmm. jox leen ñu lekk ba seeni koll fees engraissé leen tey ñu ne ko fi ñukk Macky na préparé wu. ok suy daanu ñuy toxu. ay Made in Abdoulaye Wade la ñu de Made in Abdoulaye Wade. suy da su APR di daanu ñuy toxu fu tooy ñu takk. ah kon noonu la ñuy def ràññoo ñu. roñu roñu dem. roñu roñu dikk roñu roñu dikk. cee Souleymane Ndéné Ndiaye moo fi waxoon ne. waa <laughs> tax a ñi nga xam ne ñi ngi wax ne. ñoom dinañ doon rekki Macky. Mhm. wallaahi ils n'auront pas raison. du ñu am dëkk. moo waxoon je le jure sur le Saint Coran. Ah. <laughs> wallaahi. waa tax a jëfee ils n'auront pas raison. lii la fi waxoon ne ñoom duñ ma sam dëgg. Mose Mandela quitter le PDS créer un parti euh, pour relier à la paix wallahi je ne le te nii la ko billaahi wallaahi wa fu mujj quitter le PDS créer un parti transi mi jàdd ko dégg loolu wallahi jaay jaata Pape Samba moo fi waxoon ne euh. Macky Sall sondage yi génn dañoo feeñal ne Karim Wade da koo raw lu bari moo tax du ko bàyyi. loolu la waxoon moo ne Karim Wade coupable la sàcc la. moom moom def na ko sàcc. loolu politique Dakar Times ñëw ak ñun ci député yeeg conseil économique ak ñoom haut conseil. Mhm. ñoom laa la Aïcha ñoom laa la. président Macky Sall lu tolloo 15 milliards 800 leen di jox. ñu téye. 98 milliards 200 millions. lay jox ñooñu seen personnel bi. ah ñoom ñu war a téye. personnel politique. seen tabaski neex na. nit ñi xiif. seen seen jël lu ni mel di leen ko jox. seen tabaski neex na. Euh, évidence yéen kaay ñëw ak ñun ci. Mhm. ku ma Ndofène meeru jàmm gën si Kambaaw. Ndofène tey laa gën a nekk Macky. waaye ay APR ne fii di ma xeex. te du ci yem. source a ñëw ñun ci bis bu nit yi ñu yaakaaree ne Macky inauguration yeeg nationale ak xaw ma la ay taleeg nangam mooy tax mu am deuxième mandat. Mhm. Momar Diongo nee na yàlla baax na ñii de seen wax jaratul dóor sa doom. loolu ñu xaar euh, Zoom info ci. Mhm. général ba bees baa ngi gendarmerie waaw ah, doomu Tëngéej la de. waaw ah, doomu Tëngéej la doomu Tëngéej la. général Cheikh Sène. général Cheikh Sène kii nañ ko démb. Hmm. réew mi quotidien ñëw ak ñun ci Baara Sow. réseaux sociaux yee ko rey de. Baara Sow mooy waa ji dóor jabar ji. Hmm. waaw. moo ko weer. direct info ñëw ci Pape Abdoulaye Seck. Hmm. direct info. ànd ak Eumeu Sène signe la paix devant Wally pour terminer la saison la. xanaa la wala démb la. est-ce que du démb démb la woon démb naa. ah dés bi dés bi. lu mu doon. bàyyi ñu dem bàyyi ñu dem rajo. bi rëy na de <laughs> maa ngi dégg waa ji am fit bu ne di di wax ndaw si nag. waaw ndaw si nag doo bàyyi rek mu dugg soixante quinze sax mu am sept cent mille <laughs> ndaw si tamit. monsieur le damaa yéemu ci yàlla. monsieur le maire. te loolu dañ ko waxtaanee tis ba ba sonn ndeysaan. mais dara du tax ñu bàyyi. Sénégal ki lay woo di la nax kay. heureusement nit ñaa ngi yeewu léegi. Euh? nit ñaa ngi yeewu léegi da ngay wax rek taf taf ñu enregistré la téye. maa la ko wax. bàyyi la nag nga naan ay yónnee ma cinquante mille ak nga ma jox la cinq cent mille ki ki ngay may cinq cent mille kii xanaa doo ko laaj cinquante mille. wax dëgg yàlla nag bu fas dul dem fa fas dul dem xel fay doxantu. ah vraiment. baax na. léegi monsieur le ba boo tëni. boo tëni. suba dee laa fi am ñaata at sax est-ce que du juróom ñaata 2011. suba laa fi am juróom ñaari at. suba waaw. 2011 le 11 août. dañ ko waroon anniversaire est-ce que duñ ko anniversaire lundi. ah dañ ko yóbbu lundi. anniversaire ah, waaw ko def lundi waaw. Ah, nañ ko màggal lundi waaw nañ ko màggal lundi waaw. nañ ko màggal lundi anniversaire bi lundi la. waaw lundi anniversaire la ñëpp ñëw ah, jàpp sama heure de retraite nag jot na. jëm fan. xanaa bàyyi. mooy ci yow <laughs> naa la <laughs> Sénégal ñu ne actionnaire. voilà jot na majoritaire ci yow. moomatoo sama ku defee ñeenti at def fii juróom-ñaari at <laughs> def oxygène at. déedéet xaw ma ña doy na. loolaay dama ko fenn. ku nekk ci métier daal. xaajala xaajala ko sax ñaar jàpp fukki at ak ñett. xaajala ko walaay loo ca amuloon dootoo ko am. xaajala ko. bàyyi ma bàyyi mu ne la. nee na da cee rafet ci kanam. <laughs> Sénégalais yee ko bëgg. suba laa naroon tàggoo de. jëm fan. bàyyi. moo jaw suba laa naroon tàggoo. site yi bi xam naa ne ñu ngi waajal di dagg lool pour génne ko bu la mën ngeen ko tayal a dagg sax pour génne. dégg ngeen suba laa naroon tàggoo juróom-ñaari at daa doy sëkk <laughs> waa sonn teel a yeewu gi. yàlla baax na en attendant ñu ne boo tëddi. boo boo tëddi waaw ba léegi. ma di kàjj këleel xibaar yi faram-fàcce ko bu jàppandi.